kon sëriñ bi waxoon na ne yonent bi moom benn baay mënut koy jur waaye benn jigéen mënut koo jur moom daal melow ku ñu jur la te melow wu day tëq jëmm moo tax boo ko tuddee tudd way juróom wu góor di Abdullahi boo ko tuddee tudd way juróom wu jigéen di na Amina ndax melo dafa baaxoo di tëq ak jëm kon daal booy melal yonent bi ne ku ñu jur la waxal ne am na way juru góor ngir melo day tëq ak jëm am na way juru jigéen waaye bàyyi lu ñuy mën a mën a jur mën nañuy jur ku mel ni jigéen ñi lu ñuy mën a mën a jur mën nañuy jur ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi kon tagg la woo xam ne bu kawe la sifaatu mawludin wanal abaau an mislihi wa wannati nisaau ba léegi rek mu woy ci di ko tagg taggin woo xam ne wu kawe la ci ni ko yàlla sel waaye ci ko yàlla setalee mu ne sufiya sellalees na loxo ñeel yonent bi baatinun lay aji nëbbu ca moom wama saxar ak la fiiñ ca moom moo tax fa xabada jaamu na almawla yàlla muy kilifaam muy boromam kama amar comme ni nga xamee ne noonu la digalee bii ci moom mu ne yonente bi ak baatinam yépp kenn mane su leen xàmme lépp a jag lépp parce que li ko yàlla sant lépp diggal ko ko ci mu jaamu ko lépp dafa mat sëkk te bàyyiwut ci dara wàññiwut ci dara yokkut yokkut ci dara moo tax baatin ba nam meloon ci set ak mbaax ak sell kooku moom saahiti sax moo ko raw tubaarka la ñun nag da ngay gis li jëpp ci nit ñi mooy seen saahir sax day des a baax waxuma la baatin bi moom dara baaxut ca saahir si rek léeg-léeg nga gis ci nit naw ko lool ci saahiram waaye léeg-léeg mu def loo xam ne ci kàddoom wala ci jëfinam dang nga ciy jaaree bañ ko ba foofu moo tax ne yonent bi suufiya seelalees na loxoo ñeel ko baatinun lay aji nëbbu ca moom wama saxar ak la feeñ ca moom fa abada jaamu na almawla yàlla muy kilifaam kama amar kom ni nga xamee ne noonu la ko digale bii ci moom siraatuhu yoonam wa huwa moom assiraatu mooy yoon almustaqim way aji jub siraatu man mooy yoon ña nga xam ne lahum ñihal na leen mooy am nañ rek la dallahi fa yàlla naem aljanay xéewu ga nee na wenn yoon moo fi nekk te mooy yoonu yonent bi salaay salaam mooy yoonu jub loolu mooy ihdina siraatal mustaqim njub moom genn rek la moom lañ jox yonent bi salaay moom lañ doon jox yonent yi ko jiitoon yëpp moom lañ ko wax na ko topp leen roy leen xencul seen njub fa bi hudahumu iqtadi kon yàlla moo leen jub moo leen jubalal boppam bu noppi wax yonent bi roy leen ulaayka lasina hadallahu fa bi hudahumu iqtadi moo tax mooy yoon wi mboolem ñi fi mos a jaar di jaamu seen boroom ba am ca yàlla cërëb aljana te muy war a xéewu ci aljana yi muy saxaaba yi nga jël ko ci cité leen ak ñi ñëw seen ganaaw ak ñi leen fi jiitu ci ay yonent ñëpp yoon woowu rek la waaw mu siraatu man mooy yooni gaa ñi nga xam ne lahum am nañ lahum ñeel na leen la dallahi fa yàlla naxeem yi xéewu ga sama de yàlla mi ñëpp jëmale ay aju te jubloo aju jëm ci kenn jut nag ma tabe man sëñ Tuubaa lii ñeel ma bi jaahil Mustafa ci darajay ka kañu tànn ka xasiriya sama dékki mooy sama pang rek xalfuhu ci gannaaw yonent bi bit daalil xullafaa u dañoo dagg xam si gi ànd ko ñeenti xullafaa fa yi mooy ñi nga xam ne ñu fi wuutoon yonent bi salaay salaam mu ne yàlla yow mi tudd samadu ci turam yi la bokk mu ne nag ma may ci darajay yonent bi salaay salaam bu liggéey bu ma dékkee ba ngay pagg say jaam na ànd kook Abu Bakrin ak Omar ak Ousmane dekk seen ganaaw ànd ak yonent bi tam tàbbi aljana waaw ndeysaan gis nga de ànd Abu Bakrin ak Omar ak Ousmane ak Ali te sëñ Tuubaa wax na ci Mawaahibul Quddus ne boo léegi yemal xeamee bu ñuy dekki kuy njëkk a tikk kuy njëkk a téye téere jëfam ci ndey jooram mooy Sayyidina Omar ibnul waaye dañ ko laan yonente waaye boobu Abubakar fan la nekk mu ne Abubakar fekk na malaayka yi këf ko ba yóbbu ko aljana mooy yonente bi salaasal kon gis nga cër boobu moo am moo tax mu ne jutliya bi jaahil Moustapha xasriya xalfahu bi daalil xulafa may ma ci daraja yonente bi bu ma ma dekk ci gannaaw Abu Bakrin ak Omar ak Ousmane ak Aliyu ànd ak ñoom ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam dem nekk na fi man ci lu wér ma xam ko ne annal Moustapha naka kii di yonente na man ma yaati ak ñiy dikki ak waman ñi nga xam ne xan teew nañ fil xaali ci biir jamono jii gis dégg nga mooy gaar gaar nañ fil xaali ci biir jamono jii teew mu ne nekk na fi man xam-xam bu wóor boo xam ne amul fu ma ko sikk duma dem fenn di ko sikk itam xen di la wax duma ko sikk fii du ko sikk tey di ko sikk démb di ko sikk ci ñëw daf ma leer nañ ñi démb leer ma nañ ñi tey leer ma nañ suba ne yonent bi moo kawe mboolem ñi fi mos a jaar ci ay yonent ci ci lu wëy waaye ñi fi mos ñi fi mos a jaar ñëpp ñëpp ak ñi fiy jaar ci nit ñu baax di ñëw ñëpp ak ñi dund ci jamono ji man Sëñ Tuubaa mooy dund ci ay aqtaab ay awliya ku mel ne yonent boobu kooku dootul ñëwti mukk moo tax mu ne xend yee nekk na fi man Sëñ Tuubaa ma xam ko xam-xam bu wér ne annal Moustapha naka yonente bii nga xam ne mooy ku ñu tànn ki xat faaxa kawe na man ña nga xam ne mada wëy nanu ci ay yonentu waman yaati ak ñiy dikk ci ay nit yu baax ñëpp ak waman ñi nga xam ne xan gaar nan fil xaali ci biir jamono ji teew ci lu teew ak ci lu ak ci lu ñëw xam nga ñetti jamono yi rek ñoo am démb ak tey ak suba mu ne ku mel ne yonent bi moxtu ñëw dootu ñëw xaasa dund na mu taaxan mbir moom doon ku ñu topp wam mu xan te muy aji topp boromam wa madaa ta faatu na madaa boobu faatu na lay tekk waaye bu la neexee ba tey nga ne wa madaa te wëy na mooy nekkatul fi waxeen danaa te nekk na fi ñun sëñ Touba ka annahu ba mel ni moom yonente bi maa in ma daa mostu faatu mos mosut fee ñàkk a nekk mostu wëy gis nga bayit bu ma neex la ma ko yàgg a waxtaane lool def naa ne bëri na gàmm yi may dem bayit bi moom koy boolewaale ci samay waxtaan ngir daf maa neex lool leneen yonente bi dafa dund dundam lépp topp yàlla la dundam yëpp dañ koo topp ñam woon ñi gëm ko ñëpp dañ koo topp waaye moom it dafa toppoon boromam ndax man yuti rasula faqad ata Allah ku topp yonente bi topp na dëgg-dëgg yàlla waaye ku ko bañ a topp rek saa borom force wut ko nee na ko yónnuwuñ la ngay manifester wala ngay ab sandarma wa man tawala fa ma arsalnaaka alayhim hafiizan mu ne yonente bi nag léegi nekkatut fi ci waxin waaye ñun Sëñ Tuubaa jamono ji ñuy dund dafa mel ni yonente bi mosu fee ñàkk nekk mu ngi suñ biir kon lii day dëggal ne yonente bi ana ñi nga xam ne dañuy weddi ne gàmmu bi dexa la nee nañ bi mantu nekk ci tànt yëpp am tey ñëpp buñ doon gàmmu ci misaal Sénégal yónente bi mën naa dem ci tànt yëpp kenn ku ci nekk mu dem sab tànt te ci benn jotaay rek lay nekk nag benn waxtu benn waxtu ci lay teewee ci tànt yëpp suñu borom mën na mën naay defal yónente bi lu mel noonu lu ko raw ndax loolu sax moo ci gën tuuti foo dem mën nga fay fekk yónente bi ndax yónente bi moo nekk fépp tànt yëpp bu fekkee moom rek moo tax ñi tànt ko di ko di màggal ak juddum tànt boo dem mën ko fa fekk kon mu ne yonent dafa mel ni mosu fee ñàkk nekk mu ngi nii suñ biir dundam lépp da topp yàlla waaye ñam woo woon itam ñi gëm ko dañ ko toppoon te fu ne nekkatul fi waaye dafa mel ni mu ngi fii mu ngi suñ biir ñun Sëñ Tuubaa xaasa dund na mu an doon ku ñu topp wa mu doon kuy aja topp boromam wa ma daa na waaye nag wa danaa wëyam googu nekk na fu ñun Sëñ ka ànd foofu ba mel ni ma it ma daa mostu wëy gis nga bayit bu rafet la mu ne abada jaamu na sal jalaali yàlla muy borom màgg ki bil imaani ci imaan muy ngëm yàlla ku dëgër bil imaani ci ngëm yàlla xaqan dëgg-dëgg wa bil ihsaani ak ci islaam wa bil wal ak ci insaan mu ne jaamu na yàlla muy borom màgg teg ko ci imaan yonent bi ku amoon imaan la muy gëm yàlla gu mat sëkk goo xam ne du ci déng-déng mukk te amul ci sikk waaye daan pratiquer islaam islam mooy bi nga amee imaan ba noppi dañoo bëgg islaam mooy ngay pratiquer ci say cër ni ngay jaamoo yàlla sa julli gi yàqoon noo koy defaree yépp nga jublu ci rek sant borom bi ndax ñett yi moom kenn mëntu wax ne ab jullit laa te nekkul ci yow muy imaan islam ak ihsaan xaaji di nii la waaw gëm yàlla gëm malayka yi gëm téere yi gëm nit ñu baax ñi gëm wëllu yu gëm dogal moo xam bu neex bi la ak bu naqat yépp waaye nag islam nga di ko pratiquer insaan nag mooy tasawuf moom mooy présenter tasawuf mooy lépp looy def rek da koy def rek te tax waaye doo ko def ngir man doo ko def ngir keneen waaw nga xam ne lipp looy def rek da ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis donte gisoo ko sax na nga xam ne yàlla mi ngi lay gis xam nga nga ne yàlla mi ngi lay gis nag moo tax ngay def li ñuy wax muraqabatul kubra ak suxra nga xam ne boo bëggoon a mooy sax da nga naan ah man de yàlla mi ngi may gis kon jarul mooy mooy comme yàlla mi ngi may gis te bu ma bu mooyee gis na ma man damaa bindal bàkkaar kon jarul mooy mooy insaan lu am dool la moo tax mu ne xabada jaamu na mu yonent bi sal jalal kay borom màgg ka muy yàlla muy boromam la jaamu bil imaani ci imaan muy gëm yàlla xaqan ca dëgg-dëgg gis nga xaqan la sëñ Tuubaa wax kon nit ki mën naa wax naa yàlla nii ci kaw rek fekk sax nekkul ci moom waaye yonent bi xaqan wa bil islaam ak ci islaam muy di wéyee santaane ak borom jébbal léppam yàlla waaye nag wal ixsaani ak rafetal te muy tasuf lii itam ba tey murit bu ne mënut ko ñàkk waaw murit balaa wax ne murit laa fokk mu gëm yàlla waaye nag jaayante doogoo def li ñuy wax jaayante commencé def li ñuy wax tasu di rafetal def te yàlla tax mu ne yonente bi nag xibaadatan jaamu googu mu doon def yalla yàlla ci imaan ak islam ak insaan xibaadatan jaamu la lil hubbi ngir bëgg yàlla wa tahsimi ak màggal ko waaye walam takku nekkut li tal li talla bi naami ngir sàkku aljana yi xéewal ga gis nga fu yonente bi nekkoon foofu la Sëriñ Tuubaa nekkoon neen yonente bi jaamu gi mu doon jaamu yàlla defutoon ko ngir bëgg da ko defoon ngir bëgg yàlla ak di ko màggal waaye def koon defutoon ngir bëgg aljana xam fu ne am na ci nit ñoo xam ne bu yàlla xëyoon ne aljana amut safara amut ñi ne ko dootuñ la jaamu waaye boo gisee ñu jaamu yàlla dañoo ragal a dem safara bëgg tàbbi aljana waaye yonent bi dafa yegg ci yuri doon a wàcc xaxu nga xam ne day jaamu yàlla day jaamu yàlla bil xadaati wal asi yuri doon wàcc xaxu ci xëy yi ak ngoon yépp waaye ngir bëgg jëm yàlla ci waaw ah, dafa bokk ñi nga xam ne yàlla mooy wax ne allasina yadoona rabbahum a xadaati wal asri yuriduuna caaw dañuy jaamu seen borom ci xëy ak ngoon yi ngir bëgg jëmam ci waaw ah, nga xam ne fu ne moom safara taxut aljana taxut nga xam ne bu ci ñaar yëpp amutoon itam du tee moom day jaamu yàlla ngir bëgg ko rek sëñ Tuubaa noonu la roy yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne moom dafa jaamu boromam jaamu boromam ba soxlaatul aljana ragalatul safara waaw ah, moom it noonu la roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ma ne xibaadatan ak jaamu la lil hubbi ngir màggal ngir ngir ak sopp waaw jaamu gi yàlla daal ngir bëgg ko la bëgg jëmam ja rek waaye du aljana ngir ragal safara waaw xibaadatan ak jaamu la lil ngir sopp wa taxsimi ak màggal waaye walam takun nekkul li talabi naami di sàkku aljana yi xew ga kon yonent bi soxla toon aljana waaye lam bëggoon ci borom subhanahu wa taala rek mooy bëgg ko ak di ko màggal ndax loolu rek moo fi nekk yàlla moom dañ ko war a bëgg waaye bu noppi di ko màggal jox ko jox ko cër bi moom waaye sax lépp lu yàlla màggal nga di ko màggal wali hab taxsima jamia xurumaatillahi wak fi nii saqa aw nadamaat Sëñ Tuubaa neen yàlla nag ma may may may màggal mboolem yi nga xormal kaaba nga ca la bokk yeneen yëf yëfaan yëpp yàlla màggal ko ca la bokk yëpp yëpp da ko war a ba ci nit yàlla yi sax da nga lay war a màggal ndax yàlla leen màggal kon noonu nga leen di xormal wa man yuazib saxaa'irallah fa innaha min taqwal qulub gis nga kon màggal mandarga yàlla yi tegtale yàlla duñu yàlla waaye dañuy tegtale yàlla loolu lay joxe ak ragal yàlla mu ne yonente boobu xaw noonu ndimbal la li ku liman ci képp koo xam ne xadis taan sàkkoo naa dimbandikoo bi ca moom wa kullu man képp koo xam ne istajaara sàkkoo naa xettalikoo bi ci yonente bi laa yuhan deesu ko doxa dal nee na kuy sàkkoo dimbandikoo ci yonente bi am nga ndimbal lu mat sëkk ndax kuy sàkkoo làqu ci yonente bi lu ko dara mu ñëw làqu ci yonente bi di sàkku ma xettali ko nee na ko kenn du ko dox dal benn mii def du ko dox dal kon ndimbal la ci képp kuy sàkku ak ndimbal waaye képp koo xam ne sàkkoo naa xettali ko ci bi kenn du ko dox dal ci xaw noonu ak ndimbal la li ku liman képp koo xam ne xadista an sàkkoo naa dimbandikoo bi ci moom waaye wa kullu man képp koo xam ne ba tey istijaar sàkkoo naa xettali ko bi ci yonente bi laa yohan kenn du ko dox dal fu mu toll ndam rek ci lay nekk xamman ndàmbe na mooy matalee na jamihal xalqi mboolem bindee fi bi ixtiraami cik xorma li wàcci sil jalaali ngir yàlla muy borom màgg ka wala likraami ak terala ga nee na xorma da koo joxoon bindeef yëpp waaw mu jamono wante woon ak ñëpp la joxoon xorma yonent bi salaay sama xorma gi la diggante bi yàlla rek waaye ba ci saxaaba yi sax fu ne fu ne nga xam ne xorma ñëpp la ko daan jëflante mu ne nag kon xorma gi mu joxoon bindeef yëpp dafa matale bindeef yëpp la ko joxoon te bam leen ko joxoon ngir jëmmi yàlla gis nga gis nga moo tax lutfu gi nekkoon ci am mooy ñeewantu ñe ko gëm da leen yërëmoon topp giñ ko topp ak mbaax giñ baax dafa amoon ñeewantu ci ñoom ba ci yéefir yi sax da ngay gis ne lu ñuy bon bon yonent bi dafa amoon ñeewantu ci ñoom kon xorma googu boromam jox ko mbindeef yëpp la ndam bi ndax xam na ne mbindeef yëpp ci aw xeetam lañ bokk moo tax mu ndàmbe waaye nee na da koo defoon ngir jëmm yàlla muy borom màgg ki ak yow yàlla infu na nga baxal an nii jëlee ci man sal jalaal yow muy borom màgg ka wala likraami ak terele gi bil Moustapha ci daraja ko ñu tànn ka wow ta yàlla na nga yóbbu loxoo ci yonent bi nisaa mi sama wuyu moo ci desoon de yàlla baxal ma lépp lu ma la mos a def yow muy borom màgg ki ak terele ci daraja yonent bi waaye sama wuyu wi fexal ba mu yegg ci bi ca raw bu tedd ba xam ne fu ne sëñ Tuubaa dematut waaye yàlla la na ko na ko yóbbu waaw wow xas na nga yebal loxoo mu jëm ci yonent bi nisaa mi sama wuyu bi na nga ko yóbbu moo yóbbu rek xam nga yàlla moom lu mu yóbbu doon yegg defe naa ne yàlla lu mu yóbbu moom mëntu ñàkk yegg fokk mu yegg moo tax ma ne ko info na nga baxal lépp lu mu mos a def ci xeeti bàkkaar na nga baxal xan jëlee ci man sal jëlaal yow mi borom màgg wal likraami ak karale bil Moustapha ci darajaay ko ñu tànn ka te woo xaas yàlla na nga yóbbu la koo jëmee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni saa mi sama wuyu kon wuyu daal na yegg ci yonent bi waaye yàlla yow laa bëgg nga yeggali ko moom lu mu rek defe naa ne yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax. te buñ ci kenn mag sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama. sëriñ bi delloo waxaat ne fuuxu naa bi fawqil mustafa al mukarrami al mursalina man madaw min umami fux naa kawee nanu nun sëñ tuubaa fux naa góog nag mooy xeetam bi rek la ci jublu kawe nanu nun xeetam bi nun sëñ tuubaa bi fawqil mustafa ca kawe kañu tànn ka al mukarrami kada ku ñu teral ñan lanu kawe mu ne al mursalina ña dañuñ yónni ña man mooy ña nga xam ne madaw wayoon nañ fi min mi ci ay xeet sëñ Tuubaa nee na war na noo sant ñun xeetu yonent bi parce que kenn rek lañu ñu yàlla rusee ba tax mu ne yéen a gën ñëpp kenn rek gis nga kon kenn ku wetti xeet wi yëpp la nga xam ne mbaaxam gi moo tax ñi tagg xeet yi waaye du xeet wi seenu mbaax dafa naa ne xeet yonent bi fu ne lu ñuy def ci musiba kenn xamul nu mu toll yàlla yonent bi rek a tax kese ku kawe moom rek a tax ku am loo xam ne yeneen xeetu njëkk yi amuñ ko woon ci daraja yonent bi ci lañ la ko defalee waaye du sa nguur ak bopp du sa jàmbaar déedéet yonent bi rekk tax suñ borom na ne kuntum xayra ummatin uxrijat li naas taamuruuna bil maxruufi wa tanhawna anil munkari gis nga nekk ngeen gën ci aw xeet waaw nga xam ne nit ñëpp yéen ci gën xeet yëpp yéen a ci gën lu ko waral da di santaane lu baax di daw lu baaxul santaane lu baax di daw lu baaxul kon xeet yi xeetu yonent bi ñoo gën xeet yu fi jiitoon yëpp waxuñ nag yonent ya waaw moom yonent baa leen waaye nag ñoom nag seen yonent yi ñoo gën sunu sunu xeet wi nii waaw mat naa leeral waaye ñun nag xeet ya xeetu yonent bi moo leen gën ñi ci gëm yàlla nag laa wax waxuñ nag ñi gëmul yàlla ci xeetu yonent bi waaye ñi ci gëm yàlla te topp yonent bi saa sam ñoo gën ñu gëm yàlla te topp yonent yi fa jiitoon ñu toppoon noo ñu toppoon insa lu ñuy gëm-gëm ñu topp yonent bi te gëm ko ñu ñoo ñoo ñoo ëpp daraja foofu am na hadis bu ñëw ne sax yonent bi moo wax ne dont ñi ngi wax naan daif la maa am ne sama borom xam-xamu xeer yi ñoo tolloog maanaam yonentu bani Israayil la waaye hadis boobu ñu bëri dañuy jàpp ne daif la rek waaw daif la waaye loolu pour war la rek ngëneel la xeeti yonent bi sallallahu alayhi am mooy yeneen xeet yi amuñ ko moo tax mu ne kawee nanu waaye nag kawe gi nag bi faw xiil Moustapha ci kawee ku ñu tànn ka al mukarrami ka di kuñ teral ci lañ kawee al mursalina ñetti ñun yónni mooy ñan mu ne man ma daw mooy ñëwa yoon min mi ci ay xet ndax yàlla ñu tàggal boppam faasa texee na gis nga mi ngi wax ci sax jamiihul mursalina mboolem ñun yónni ña al asfiya ñi daway sell wicc bi jaay yi ci daraja yonente bi walan bi yaa ak ñu ñu soloo ña jox leen xam-xamu nubuwa te yónnuñu leen walaw lu ak wëllu yi al asfiya i al anbiya i al awliya i benn bu ci nekk da doon laaj xam sax waaye wëriwee tax ñu dagg ko gis nga ko nee ci darja yonente bi anbiya u yeeg awliya u yeeg mursaloona ñëpp ci lañ texe kon ñoom ñëpp am nañ aljana mais ci darja yonente bi ci lañ ko gis nga kon ñoom même sax ba dugg ñuy dugg aljana ñun xeetam nu ñu amee sens nga xam ne mbaaxuk yonente bi ci lañu yàlla leen mbaax ñoom it kat noonu rek la mel waaw ña fa jiitoon ñëpp waaw awliyaa u yii di dund yëpp bu ñu amee aljana anbiyaa u yi fa jiitoon mursaloona te fekke wuñ leen ñoom ñëpp doon ñu sell bu ñu amee aljana ci daraja yonent bi la kon yonent bi mooy lépp rek nga yonent bi mooy mu ne fus naa tuufu nanu bi an nakoona ci nekk gi ñu nekk xayra umma di ngën ci aw xeet bi ci barke bi yonent bi na annahu ngir naka moom yonent bi rasulu rahma mooy yonentu bi yërmande mu ne texe nañ lu ñu tax a texe mooy nekk giñ nekk ngën ci aw xeet yàlla ñu taggee xayra umma ngën ci aw xeet nga xam ne kon dañoo settee ci mboolem xeet yi na ñun ñoo ñi ci xeet yi loolu ñu ngi amee ci barke bi yonent bi barke bi bi képp tax ñam ko lu ko waral mu ne yonent bi mooy yonentu bi yërmande ndax wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yónnuñ la lu dul ngay yërmande ñeel mbindeef yi ci mbindeef rek lañ la yónni waaye yónni la ci xeet wi gën waaw kon aalam yi gis nga ñëpp ci lañ ko yónni mbindeef ya nga xam ak ya nga xamut ak yëpp ba saa di taxaw ku ñëwatu ci xeet yonent bi sallallahu alayhi ci la bokk te yërmande la ci ñoom yërmande jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam neexutoo wax waaye yërmande googu borom yónni ko dafa keemaane ndax fu mu tollaan rek daraan xelaat aaya ji di ko xelaat rek moo tax mosta nangoo faat kenn nangootu jooyloo kenn mostu bàyyi kenn muy xiif ngir yërmande googu am yërmande am lutfaaniya am ak ñeewantu goo xam ne kenn mën koo misaal moo tax mu ne tuufoo nañu ngir nekk gi ñu nekk di ngën ci aw xeet ci barke bi yonent bi ci la ñu texe ngir nekk gi ñu nekk di ngën ci aw xeet ngir yonent yi moom yonent bi yërmande la yàllaa ko yónni mu doon yërmande ñeel mboolem mbindeef yi bàyyi ma yëg ya nga xamoot ak yëpp mu ne faasa texe na ba tey àll si ki nga xam ne uddiif gana lees na li ciy tasaduru ñeel borom gonge bi bi ci barkeb yonent bi la texe walaw kaana donta nekk na sax xaqiran di aji xeebu waddaxeef di aji lompañ ci pas-pas waddaxeef di aji lompañ mu ne texee ne ci darja yonent bi salaay salaam dontu ko xeebu la doon ko lompañ néew doole mooy ki nga xam ne dafa gonge ñëw topp yonent bi salaay salaam donte ba muy wëcci léppam ay mbokkam ñépp ay kéefër lañ dañoo weddi yàlla mu bàyyi leen fa ñëw jox boppam yonent bi nee na kooku kooku texe na donte sax ku xeebul doon ku lompañ ci doole ak ci pas-pas nee na kookee bu ñëwee gongeeku rek ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gënalee ko lislaam nee na kookee am na ak texe donte ba muy ñëw ci yonent bi dafa xeebu woon doon ku lompañ faasa texe na alasi ki nga xam ne uddiif ganaleef na li si tasaduru ñeel borom gongeeku bi ci barkeb yonent bi salaay salaam ki gongeeku ci barkeb yonent bi ñëw dugg ci lislaam ak foo mën a baxee ko walaw kaana Sëñ Tuubaa dont donte nekk na sax xaqiran di aji xeebu wala di aji lompañ léegi nag mu joxe ci ab misaal bu sew pour ñu ñëpp ñi bëgg koo xam mu ne nit de lu mu bon bon bu àndatee ñu baax ñi rekk baax dañ koy yóbbaale ci mbaaxam yonent bi lu mu baax a tax yàlla tagg aw xeetam yonent yi lañ baax a tax yonent bi baax yàlla nee dara daraja jañ am yëpp donte aljanal sax ci daraja yëpp ci lañ ko mu misaal ci nag xaju asaabul kahf bi bim toppee juróom-benn ña juróom-benn ña duggoon ci xuntuma sàmm ba juróom-ñaareel leen xaj ba juróom-ñetteel leen. nee na sàmm ba dafa bëggoon a baax moto mu ànd ak juróom-benn ya xaj ba dafa bëggoon a baax moto mu ànd ak sàmm ba ñi dugg ci xuntuma yàlla nelaw loo leen fa. salaasa mi ati si nii na wax daaro tisaan ñetti téeméeri at ak juróom ci at xamariya bu dee samsi ya nag mooy ñetti téeméeri at donc léegi nag mu jox ci misaal mu ne xaj ba li tax muy tàbbi aljina ëllëg dafa ànd ak ñu baax donte xaj ci waxin xaw naa niru lu ñagas xaj xam nga nit tey boo ne ko xaj rek xas nga ko. waaye xaj moomee lu muy dox du dox di ak xeebu dañuy gis ne bëri na jukko yoo xam ne buñ ko doon lim jukkoo assaax yi doon yi la as sidqu yi a maanaam ak yonent yi ak mursaloon yi jukko yonentu la amee ay awliya yi ak assaax yi yi boo demee ci alxasanil basri yi dañ la limal yu bëri yoo xam ne ay jukkoo xaj lañ taggaay yàlla yi dañ ko doon takkaayoo yu bari yoo xam ne mani su ko lim léegi nag mu ne xaj ba sëñ Tuubaa li bëgg a jàngale fii rek mu ne li ci doy seede ku ànd ku baax da nga tàbbi aljana mu ne xaj bii dafa ànd toon waa asaabul kahfi moo tax mu dem aljana bokk na ci xaj bii dugg aljana mu ne fa kalbu ahlil kahfi xajub ñuñ xuntuma na seede saa ci lii xii na mun tabi waxtu wa nga xamee aji sànneeku la xaddan ëllëg yomal xiyam xan ànd koog ànd koog ñu baax ña dugg aljana rek la ci nam mu ne xaju waa asaabul kahfi doy na seede ci lii li ma wax ne faasa la si li si tasaduri udiif bihi walaw kaana xaqiran wa daaf nit lu mu xeebu xeebu doon ku lompoñ bu gongee ko ñëw gub ñëw ci yonent bi sallallahu dugg ci lislaam rek kooku am na aljana ndax doon te dafa doonoon ku bon waaye léegi dafa ànd ak yonent bi te yonent bi dafa baax te mën na ko yóbbal aljana mun lii rek doy na ci seere xajum ñuñ xunt ba muy asaabul kahfi dooy na seede ci lii boo léegi yomal xeamee waa asaabul kahfi juróom-ñaar lañ xaj bi moo leen juróom-ñetteel bi day ànd ak ñoom dem tàbbi aljana ikk nekkut ca moo tax mu ne fa kalbu ahlil kahfi xajub ñuñ xuntuma saahidun aji doy seedale lisaa ci lii ma wax firndele ci xii na mun tabisaa waxtu ma xameen aji sànneeku la mooy daw xaddan ëllëg yomal xam xan xëyri mi ànd ko ñu baax ña tam tàbbi jar ci na te ma ngi ko amee rek ci topp gi toppoon juróom-ñaar ña ñi dugg ci xuntuma yalla nelaw loo leen fa gis rek moo tax kon mu bokkaal yi seen baax kon mbaax ku ànd ku baax ku ne rek li muy jàngale mooy danga baax ak noo foo mën a nekk waaw moom daal ànd ak ku baax rek mbokk yi mooy li solo yàlla na ñuy ànd ak ku baax te bañ a ànd ak ñu bon ñi. naka noonu gis nga boo àndatee ku bon yi itam boo lëg yemal xiyaam yi fi mu jëm rek fi muy dugg rek fi muy tàbbi rek mbokk yi foofu ngay tàbbi te loolu def naa dara jar ko kon nag dañ fexe heure bu ne ñiy fëskee ni di ànd ak ñu baax ñi te bañ ànd ñu bon ñi. ndax ñu bon ñi moom boo àndatee ak ñoom dañ lay sànq dañ lay réer te dañ lay toroxal te bu nag fekk rëccu weesu na wala yaasu billah moo tax bi teg ci fa sikruhu bi sikrihim qad qurina fa xawsuna saqa bihi tabayana mu ne fa sikru aw turam xat xurina lënkalees na ko bi ci seen tur ya gis nga xam nga xaj bi lay wax ndax boo demee ci sëñ Tuubaa ci xasida ko tudd euh, wasila turu boo indi na leen waaw indi na leen juróom-ñett lañ seen xaj bi moo tudd xib miir yépp indi na leen léegi nag mu ne seen tur yi buñ dañ leen jox tur yu nit ñi rek xam tey boo ne xitmiir duñ xam ne daanaka ma ngeen xaj ngay wax waaye nam waxee ne tamliixa mukkasali nan marnoosin dabarnoosin kafastal yoosin xitmiirin juróom-ñett yooyu yëpp ah yooyu yëpp xam nga xam xàmmee lan mooy tur xaj bi su fekkee jàngoo arab ndax seen tur yëpp dañ leen lënkale rek ngir lan ñoo war a tàbbeendoor aljana ñoom ñëpp moo tax ne fa sikuroo aw turam moom xaj ba xat kurina lënkalees nañ ko bi sigrim ci seen tur ya seen tur ya dañ leen boole lënkale leen ba léegi yoon xam noonu la ñuy bokkee tabi aljana moo tax mu ne fa xaw sunaa sunug làq a sabqa ak jiitu bi ci nekk na ci barkeem naa ci lu biir kon sunug làq ak raw nekk na ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wasallam làq goo xam ne gu bire biir la gu leer naññ gu gën du gam-gam le ku kenn du sikk sàkk ah comme asaabul kahfi seen xaj ba li mu ànd ak ñoom rek moo ko tax a baax kon nag ñun sunu làq ak jiitu ñun aw xeetam ci darja yonent bi loolu kenn du ko sik sàkk fa xaw sunaa sappa bihi tabayana <laughs> ci Sëñ Tuubaa Sëñ na fal tuuf nii danaa jeexalee takk xomor yi sama dund fii di daaka ci sa ngërëm yaa jileel yow yàlla muy aji màgg wa dal ridal maahi ak ci ngërëmal yonent bay aji far kéefir ji wakunte yàlla na nga nekkal yow yàlla liy ñeel ma wakiil doon koo xam ne yow rek lay wakkil samay mbir di ko jooyal foo man mën di nekk yàlla sama dund gépp fas naa ko def ko rek ci lu la neex def ko lu neex yonent bi salaay sam waaw loo xam ne dalay gërëmloo di la bégloo di la kontaanloo di gërëmloo yonent bi di ko bégloo di ko kontaanloo sama dund gépp loolu laa fas ni jeexal ko ci képp waaw kon nag fu mu mën di nekk lu ma wét wét ak lu ma am wétul wétuliku naay wakkil sama mbir rek ci yow daaxa sànku na sa naawun aw tagg lam yëkkun tagg woo xam ne nekkul mat matxu nabi di tagg yónent ba yàlla jox xam-xamu nubuwa waaw is ngir lam yëkkun nekkul min manqa bi ci tànneef yi li xëyri ñeel ku dul yónent bi salaay salaam su fekkee tànneef rek nga bëgg a tagg kay yónent bi tànneef la doy na tànneef mooy tànneefu ñëpp li kulli min jumlatil axyaari martabatin laakinama ahmad al muxtaaru muxtaar ñëpp ay tànneef lañ yónent bi am nañ daraja waaye yónent bi du seen morom ñëpp ay sang lañ am nañ daraja waaye yónent bi moo leen féete kaw li kullin min saadaati jaaxun wa hurmatun na jaaxal mustafal bari yaxtali moo tax mu ne sànku na aw tagg su fekkee tagguñ yónnente ba ndax kat amul wenn tànneef ku du yónnente sallallahu alayhi wasallam bi rek kay tànneef ku nekk di tànneef ci tànneef yónnente googu ci lañ la tànne ci daraja yónnente bi ci lañ la tànne moo tax kon man daaxa sànku na gis nga moo tax xasidam yëpp jullu ci yónnente bi ak tàgg la bayit bii rek ci la ko teg daaxa sànku na sanaawn aw tagg lam yakun wóob nekkul matxu na bi di tagg yonent bi yàlla jox xam-xamu nu boo is ngir lam yakun nekkul min man xam ci tànneef yi la xëy ñeel ku dul yonent bi tànneef yi ngay nettali seen histoire di nettali seen mujisaat seen ngëneel yëpp yonent bi rek lañ ko jëlee kon yonent bi rek mat a tagg dan na nay na bi lu ci ak xelam alasi ki nga xam ne xat aflaxaa tëj na xelam ma walam yu dim tasaxalut mat xal kër yi mi tagg aji tedd ji almuntaxaaka di kuñ tànn sëñ Tuubaa nee na booy xool xel mu nay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xel muy tagg keneen fàtte yonent bi sallallahu alayhi wasallam xel daal boo bëgg xam mooy xel moo xam ne day tagg keneen te bi bokkut ca dan na bi lu la si xat aflaqa nee na xo koo xomb waaw maanaam xol boobu daal dañ koo xomb xel ma dañ koo xomb ndax su fekkee day tagg te nangutu tagg yonent bi sallallahu alayhi ci saxal ko nee na kon kooku xel ma dafa nay moo tax mu soxloo di tagg yonent bi sallallahu alayhi moom Sëñ Tuubaa du bind saafara du def dara moo tax ne dana nay na bi lu bii ci a xelam alasi ki nga xam ne xat aflaqa xomb na ah ma koo xam ne xol bi dafa tëju wala yu ndim te nangutu saxal mat xal kërim yi tagg aji tedd jàll mu taxakat kuñ tànn koo xam ne daal nangutu saxal tagg yonent sam nee na ko ko booy wut xel mu nay mooy xol moo xam ne xel moo xam ne dafa nay dëgg-dëgg te tëju te mantu wax lenn lu koy jëriñ moom xel ma mooy xel moom kon daal xel li koy jëriñ rek mooy muy tagg yonent bi sam mu ne dal la réer na xani najaati walis mucc wal falaahi ak texe man képp koo xam ne lam yelus wiiduhul bil Moustapha ci darajaay ko ñu tànn ka al kay caabig yàlla mu ne réer na ba du mucc du texe ku wiidul ci bi rek nee na doo mucc doo texe ñaar yi doo ko def te def naa ne mucc ñëpp bëgg nañ ko ci aduna ak alaxira texe ñëpp bëgg nañ ko ci aduna ak alaxira mu ne ki sànku dëgg mooy ki jëlut loosam wi wéet ko yonent bi ci topp di ko roy di ko xenc ci lu indi yonente bi nga xam mooy caabi yàlla ci yàlla mooy fatta mooy xubbuwaa kon waaye yonente bi mooy caabi ku yàlla di hubbil ku ne foog nga jaar ci buntu bi yonente bi saa mën a dem ci borom bi subhanahu wa taala moo tax ne dala riir na ani najaati wuli si mucc wal falaaxi ak texe man koo xam ne lam yelus wii duhul bil Moustapha ci daraja ko ñu tànn ka almiftaay caabi yàlla mooy koo xam ne daal fi yonente bi indi